ok nit yi sur place ngeen leen euh, bis baa ngi noonu taxaw moom nag euh, côté Dakar la jéego jëm Kédougou horaire Kédougou bi d' après première information yi ñu jot moment bi ñu wax ak yéen ba léegi nit ñi kenn mënu ko génn ci bis bi gis ngeen sàpp ñu ngi seen liggéey carrément mu nekk loo xam ne daal lu doy waar la vraiment ñu toppal leen ko ci kanam bu ngeen xoolee lii buntu hôpital la wax dëgg yàlla mbooloo mi mbooloo mi wax dëgg yàlla takku nañ ñëw nañ ñoom ñëpp pour hôpital pour maye si deret bi waaye wax dëgg yàlla ci biir moo xat am na ñu nekk si biir nag ñi ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk si biti sax fii ñu ngi may wax naa ne ñi nekk si biir war maye deret ñoom ñoo ëpp waaw wax dëgg yàlla ku ngi lépp génn nañ pour ñëw maye si deret waaye fii mbooloo mi takku nañ te ñoom ñëpp dañoo bëgg maye deret gis ngeen buntu baa ngi nii